répondre question damay déclarer rek ah voilà. Mhm. asalaamaaleykum asalaamaaleykum euh, ñu ngi leen di nuyu di leen sant man la may Maimouna Dieye euh, présidente du mouvement des femmes de PASTEF euh, ànd ak suma mbokku jigéen ñi nekk biir PASTEF ñëwoon se si tey sunu lider le président Ousmane Sonko. Euh, waaye di bëgg def say ce point de presse la pour wax rek nii ñu ngi dénoncer lépp lu fi am depuis ay fan ñu ngi ñaawlu lépp xew ñu ngi ñaawlu ni ñu jàppee yenn détenu yi mais ñu ngi surtout ñaawlu depuis démb maltraitance bi nga xamante ne président Ousmane Sonko dund na ko taxawaay bi nga xam ni mu war ko am ci les forces de défense ñu war ko protéger mais ñu exposé ko ba fii mu nekk nii ñu ngi naan lan moo ko dal ndax xam ngeen ni mi ngi fii ci biir hôpital bi produit boo xam ne ñëpp a ngi naan lan la pompé nañ ko ko xamuñu ndax dina ko gaañ ci saa si mais xamuñu ndax dina ko gaañ fii ak ay weer ba ñetti weer parce que ñun it xam nañu lépp lu xam lu xew ci ci dëkk bi mais di wax rek ni ñaawlu nañ ko ñaawlu nañ ko jusqu'à la dernière énergie ñaawlu nañ ko ñuy wax nag askanu Sénégal ak askanu bitim réew ak képp koo xamante ne yow jigéen nga Ousmane Sonko di doom di yaay Ousmane Sonko di mag di papa lii muy def lii Macky Sall di ko def ñaaw na te ñaawlu nañ ko ñuy wax rek nag ni lépp lu ko dal suba ba ngoon nu tenons Macky Sall comme responsable di wax rek nag que fi mu nekk nii li ñuy exige et c'est une exigence dañu bëgg ñu delloo ko passeport am ñu bàyyi ko mu génn dem faju ji ñoom xam nañu li ñu ko def ñun xamaguñu waaye dinañu xam mais dañoo bëgg ñu bàyyi ko mu dem seet yaramam ndax yëre boo xamante ne nii bañ la ko taxalee dafa jaune ci kaw lu weex xam nañ ne am na substance ci biir substance boobu nag xamuñu ko waaye sañ nañoo dem seet ko sañ na ñoo saytu ko waaye sañ nañoo taxaw ne dañoo bëgg ñu xam lii lan la illaa yow mi diin ñu bàyyi combat bi kon fu ñu nar a yegg ak ñoom du yomb dañuy bañ nag erreur am jàmm la ñu bëgg ci réew mi waaye ku bëgg jàmm doo écarter nit soreel ko lépp loo xam ne mooy droit civique am mënul tukki mënul dem fenn ñu téye ko fii ci dëkk bi bàyyi ba occasion am ñu pulvériser ko loo xam ne kenn xamul lan la loolu mooy doo fi jógee da ngay dee waaye loolu mooy booy dee doo dee ak liberté liberté googu nag la ñu bëgg a Sonko am ko ñu bàyyi ko mu dem faju ji nu nous tenons l'opinion internationale à témoin dañoo bëgg ñu bàyyi Ousmane Sonko mu dem seeti yaramam te ñu ngi lu traitement bu ñaaw bii ñuy def ci kawam ñaaw na ba si kanamu yàlla amul nag lu dul jeex dina jeex bu soobee yàlla mooy wax ba àdduna yëpp dégguñu ndax mënuñu lu dul wax yoruñu état yoruñu appareil d'état wax rek la man wax jii ñuy wax nag ak énergie bi ñu koy waxee suñu xol metti na suñu xol naqari na te képp kuy jigéen mbaa ngay sénégalais épris de justice war nga condamner lu ñaaw lii merci beaucoup nous sommes là devant vous je suis madame Maïmouna Dièye présidente du mouvement des femmes de Pastef euh, nu sommes la pour vraiment euh, faire une déclaration D'abord, vous dire que nous sommes indignés, nous sommes scandalisés par le traitement que le président Ousmane Sonko est en train de subir depuis des années. Nous sommes arrivés au Rubicon avec ce traitement machiavélique, ce traitement criminel qu'il a subi hier. pour le moment, on ne connaît pas les conséquences, mais en tout cas, pour ce qui est sûr, nous savons qu'il y a une tentative sur sa personne. Qu'est-ce que c'est On saura, mais nous exigeons un traitement correct Il est de l'opposition, mais il est citoyen sénégalais. Il est de l'opposition, mais il est fils digne du Sénégal. Il mérite mieux ce que nous sommes en train de vivre. Et nous exigeons qu'on lui restitue son passeport. Nous exigeons la restitution du passeport du président Ousmane Sonko pour qu'il soit en mesure de jouir de sa liberté. Il a des droits, on le revendique. Nous, femmes de PASTEF, nous exigeons un meilleur traitement. Nous exigeons le respect le respect des droits de l'opposition. Dans une démocratie qui se respecte, l'opposition a sa raison d'exister. L'opposition est, est, est, est mise à sa place. Mais dans ce pays, nous avons un pouvoir qui a juré et qui est sur ça de, de, de, piétiner, de réduire l'opposition à sa plus simple expression. C'était une promesse. Ils ont l'intention de continuer, mais ils nous trouveront sur le route. On ne lâchera pas et on n'acceptera pas. À l'opinion internationale, nous demandons, comme nous vous prenons comme témoins, pour vous demander d'exiger, c'est un cri de cœur, mais d'exiger que le président Ousmane Sonko puisse jouir de ses droits. D'abord, il doit retrouver son passeport, mais nous voulons qu'il subisse des soins. Nous voulons qu'il subisse les, les, les soins qu'il faut à l'étranger, pas ici au Sénégal. mais à l'étranger, pour qu'on sache, parce que nous n'avons pas tout ce qu'il faut. Nous voulons savoir si ce produit qui a été pulvérisé est un produit nocif ou en tout cas il ne risque pas ou sa vie n'est pas en danger. Nous exigeons cela et nous tenons l'opinion internationale à témoin.